naaw loolu dañuy woo sëñ Basiru su ko defee moom it mu ñëw comme moom mooy suñu kilifa moom mu mu sànni ci ay kàddu su ko defee ñu gën a mooy sëñ Basiru dégg nga li nga xamante ne jot nañ ko cee wax lépp. waaw asalaamaaleykum euh, ñu ngi leen di nuyu mbokki internet yëpp di nuyu suñu papa Père Bécaye di la présenter rek ma groupe bi Baye Djili mi ak euh, Ousin Male ñoom ñoo féete ci làmb ji ñooy reporter yi Adama ak euh, Kaggu. ñoom ñaar ay caméraman lañ man nag euh, man lañ dënk barab bi ma ànd ceeg ñoom it ñuy liggéey liggéey boo xamante ni liggéey bu yomb ci ñëpp la ndax ay ndaw buñ bokkee bëgg-bëgg teel a xam liñ bëgg rek day da leen di noppal euh, idée bi nag ñu koy rafetlu bu baax a baax ci bi mu fi bi tukkee ci kilifa gi ndax euh, jili wax na ko ci biir waxam waroon nañ saa su nekk ñuy ñëw di joxe àllarba ndax am na loo xamante ne nii ñun ñëpp ameel nañu la ko képp kuy reporter rek amel na la ko tey mbër bu tiimee Baye Djily mii mu leer ko ne jiili magu ko mu naan ko père c'est parce que liggéey boo liggéey bu am solo la te reporter yëpp remarqué nañu loolu mbër yi sax dañuy dem di juum naan leen père père père c'est parce que père am na liggéey bu am solo bu mu liggéey ci làmb ji muy jeunes yi nga xam ne ñu ngi doon doorandoo ak moom ba doon li ñu doon tey ak ñun ñi nga xam ne nii tey ñeme nañoo jël suñu alal investir ko ci domaine bi parce que ñëw nañ fekk ñu ratisel ñu terrain bi indi benn euh, doxalin ak benn dundin goo xamante ni dana tax képp ku yor sa alal ñeme nga ko investir ci site internet wala ñeme nga koo investir ci làmb loolu nag cër la boo xamante ne nii yow yaa ko yeeyoo ñu lay delloo njukkal di la ñaanal nga yàgg suñu kanam bu baax a baax a baax a baax ba lépp loo xam ne nii yéene nañu la ko wala keneen yéene la ko rek mu mën fee ñëw jëflante ko ak yow en tout cas daal kàddu yi li muy gudd ak li muy gàtt yëpp lenn la rek mooy kàddu yi cant la kàddu yi ngërëm parce que bu ñu bu ñu bu ñu amee fit rek ci domaine bi wala ñoom reporter yi tey ku ci ñemee jóg taxaw ne man reporteru làmb laa di ko tiitaroo rek c'est parce que seen aîné yi wala seen papa yi fi nekkoon am na liggéey bu am solo buñ ci liggéey ba ñu ñeme koo tiitaroo kon jërëjëf Père ñu lay ñaanal jàmm ak salaam di la ñaanal euh, kooru jàmm yàlla na suñu borom yàggal sa taxawaay nga am wër gën a am wër ba lépp loo xam ne nii yaa ngi koy liggéey rek ci rattaxal diggante yi suñu borom sotti sotti ko may la ci ndam ñu ngi lay jaajëfal bu baax di jéggalu nag ci kàddu yi ndax guddi na te fiñ la fekk ak koor gi <laughs> day xaw a metti ci mag <laughs> mais ñu ngi jéggaluwaat bu baax a baax a baax encore une fois.